temps yi ci biir Gàmbi tamit am beneen coow bu jug Euh, yow nee naa ko ci ndoorteelu suñu waxtaan euh, dangay nekk nit koo xam ne joxe nga sa doole joxe nga sa alal joxe nga sa voix pour yaay jëm ma fi euh, tey beneen coow ba léegi dugalaat tuuram yaay jëm ci ci mbir yoo xam ne dafay dem ci lu ñuy woowee ci Sénégal viol xaw ma nan ngeen koy woowee ci anglais kii nga xam ne moom la ñuy tuddee Toufa nekk ci personnalité bi nga xam ne moo ci gën a jug yow yaay ngi woon ci biir mbir mi nag xam nga nu gàmmi du da ngay nga yaay jëm loolu ban njàngat nga ci am yow ndax lu am la ndax coow la boo xam ne dafa jóge ci yeneen euh, doole yoo xam ne dañuy bëgg rek lu ñu tuumale yaa jëme pour jàpp ko. xam nga bu jigéen génnee ne dañ ko réeb man nekkuma fa woon mënuma génn taxaw ne ko kenn réebu la. Mhm. si moom moo génn si ne euh, Yaya Jammeh daf ko daan jàppale bi mu winee benn compétition Miss. mayoon na ko ay Apple laptop mayoon na ko ay iPhone téléphone yóbbu na ndox seen kër fekk foofu amul woon ndox jënd na ay furniture man ngeen koy waxee ay lal ak yooyu yëpp. Mhm. jox ko yaayam def ko seen kër mu ne jàmme defoon na loolu yëpp ba benn guddi mu réeb ko comme ñun nekkuñ fa woon mënuñ ko wax kenn réebu la waaye affaire bi dina nekk loo xam ne dina dem ci luwaa bu demee foofu am show dinañ ko dina ko fa nettali te su dee jàmme am mun na fa ñëw dina fa ñëw wala su dee am na ko ko représente dina fa ñëw dem bu loolu amee ba pare nit ñi nañ mun a xam dëgg bi waaye wax bi siiw na dem na ba opposition yi Gambie tamit bu Yaya Jammeh épiance yi ñu ngi wax ne man maa nekk ci gannaaw loolu tamit. dinañ ci ñëw. waaw waaye euh, loolu nag o dëgg yàlla comme ni ma la ko waxee moom bu tuufa bu génn see dañ ko réer. man nekkuma fa woon time boobu maa ngi Amérique maa ngi si euh, bi. Hmm. aw ma benn droit pour génn taxaw na ko kenn réew la. d'accord euh, souvent yu bëri dañ dañ la ciy tudd. Hmm. alors dimbali woo Gambie rek yaay dem ma dem dimbali woo Gambie rek pour ñu amaat démocratie euh, yëngatu nga ci bëri mais dañu seetlu ne surtout ñi nga xam ne ñoo farak yaay jëmme dañuy génn di naan képp ku jug ci Gambie rek di coow di manifeste di wàcc ci mbedd meek di génne di pour en tout cas gën sànq ki nga xam ne mooy yaa jëm yow yaa nekk ci ginnaaw ban tontu ngay apporter ci loolu ah, sax amul sens parce que xam nga benn àddina moom mënuloo jël sa life yëpp nga dund ko ci benn affaire loolu amul sens parce que kenn mënul yow rek di xeex every day man dama am sumay doom man man lu ma xeex te euh, tamit loolu dama koy gis lu bari. lu xew Gàmbi rek ñu ne faatu la man taluma yooyu sax fu mu nekk nii parce que man lu may def man du ma ci nëbbatu de pour lan man li may def damay génn ñëw ci kanam ma def ko parce que man man man bi ko yàlla dogalee dépenduma si kenn suma life dépenduma si kenn pour mu dem euh, yàlla laa gëm ak euh, suma yaay moom ngi fi suma waajur bu góor génn na àddina so li nga xam ne moo ma moom ma ci génn a ñor mooy suma famille ak euh, suma doom yi ma am li ci des ak nit ñi nga xam ne bëgg nañ ma léegi-léegi ñu gis dara ñu woo ma wax ma ko waaye lu tax may nëbbu bi ma doon yee jàmme moo gënoon a dangereux man nëbbuwuma ñëwoon nañ ba Washington dóor ma fa loolu jeex ma nëbbuwuma may génn soo lu tax su may def dara damay nekk di nëbbu si noonu kan lay nëbbu moom la amun taxaw xam soo naa loolu moom ñoom dañ jël seen uh, wax rek di ko wax loolu li muy wone kon tamit xëy na am na si ñoo xam ne ba tey ragal nañ suma faama hmm. te ñu koy wax ay góor lañ soo man mënuma understand loolu gis benn jigéen yow góor bu day ni yow yow munoo ci def dara nga jóg di bileem ay jigéen loolu dafa yomb trop. Hmm. man li ma leen di wax rek mooy man li may def duma ci nëbbatu dara. si loo xam ne yaaxut luwaa su ma koy def dama koy def taxaw si kanam def ko jël micro wax ne maa ko def duma ci nëbb kon loo xam ne defuma loo rek dañu xam ne bokkuma ci. ci lu ma bokk man duma nëbb mukk